bir sii di jaanloog yàlla awaama te bañ amut ab sëriñ seytaane rekki ne leen iblis rek seytaane rekki wa ixsaana kama salil kël bi day yalkat la téere bi wax aouzu billahi kuy dingal li barhama xamaana kuy woote yor ngiram ca gaañëwe yoon di xaddamal te dëggul baaraami xam kuy woote ak xut boo ki taalifi wéy te boo yëree taalifam muy ndaw fa barxaama wii waxtu moo fi abul abbaasi ahmadu may jëllat maratibuhu zuuru li barxaama raayay tariqatu tijaani dëppoo ko tey demoo ko fi yor ko fi yor ku weddi albaasi barxaama téeréem lompal na way taalif yu njëkk yo woon yuñ dikke woon yër ko jébbal ngir ma barhama moo xam tariqatu tijaani te moo ko fi xaw laaj leen ko chartiya ñaan leen wirdo barhama taalif na téere yu weexal yooni cheikhu bu wér ku leen yoroon danga naan danga naa jaaraama ba jaaraama taalif na téere weexal yooni cheikhu bu wér ku yoon wa danga jaarul fa barxam taalif na téere yu weexal yooni cheikhu bu wér ku yoon wa danga jaarul fa barxama taalif na téere yu weexal يون يويخل يوني تربية أك طريقة المصطفى مختار مرهما تالف نتيري جمل من شريعة جمل من حقيقة جمل موكي برهما موقم شريعة بولك قم حقيقة بولك سر سر المسي والسيدي برهما مروا غزالي في سر وجلوله فلا يبارى بإبراهيم برهما غير داي وانا ينبوت di def xarbaax bi xalwatihi fi dafci wal jëlbi bil asraari barhama moo raw junaydiyu fi ilmi tasawufi raw numaana fi lfardi wal xadiisi barhama allahu akbar allahu akbar moo raw sanuusiyu fi tawxiidi maa la ko wax moo raw suyuutiyu fi tafsiri barhama day tarbiyaay gaay di tafsiiral di leen joxi tur di qaddamal tey xamal daaraam ya barhaama moo xam fasaaxatu mooy saxbaanu moo mën a wéy moo donnu kaaban wa xassaanan li barhaama moo raw ëbal lay si fil quraani daana durus baay baa ko jàngal ba muy ndaw raw na barhaama day bind kaamil di jébbal baay ba mbaati magam ca ak ndawam la rawoon maasam nga barhaama mooy siiba wéyhi bi ilmi naxwi moo di omar waa kuufa ak basra نوي سوداني برهاما موي قاسم وابن دينار فروع لمن دوير سرا فوري يي دون سورو برهاما دون سورو برهاما كم يار نغراو ساي مروم كم سامبو ماي لا جبر كويت دي لاجل علي يوسي برهاما علم البيان مع البديعي موكا جوغو ولغة العرب الفصحى لبرهامة علم النجوم وعلم الرمل موكو فقم علم الدراية لا جسما فبرهامة همنك ولاية همنك ولاية همنك مي تبخنا جمعة xaj màkka dem tayba neel eskay li barhama fanweeri xat ci la xam fanweeri junne yurung sancag madinatu kawlax naa ko barhama mooy saaxibul fatxi wal irfaani mastagalam borom basiratu baangee Sidy Barhama tabarakallahu yàllaay def te moo ko fi def taajul karamaati baa ngeeg Sidy Barhama yàllaa ko wubbil ci barkeb cheikhu ahmad tiijaanin fuyudaati rabbaanin li barhama taaju tariqati tiijaani dëppoo na ko tey fil garbi yàllaa ko jagleel Sidy Barhama chamsul maarif la moo dib jant fenk na tey leeral na xaskan wi daa leeral fa barhaama ndaw leer ci kaw leer ba siidi ibra soso ci leeri alxaaji abdillaahi barhaama yëgal ne mooy doomi abdillaahi waarisihi xarfan bi xarfin li lay taxsiisu barhaama wa ummuhu bintu ibrahima aichatun siddiqatun xam na ay ndam jur na barhaama yaay astu na bii yaaram sàggan du ko jur <laughs> demooy donoy cheikhu tijaanin kabarhama tabaarakallahu ma haada bi muktasabin ndom ak ngëneel gang ci tànkab siidi barhama allam la tey mooy xalilullahi ñépp a ko xam gànnaar gànnaar a ngay ñëw di raamal siidi barhama waa makka ak merinaak faas ak sherifu minan kees ak ndakaaru kees ak ndakaaroo ngi ci ndar ñëw nañ fa barhaama kajoor bawal saalum ak waaloo ki fu tëjaloon bànjul baqaay kokki tiijaan yaa ngi fa barhaama ku weddi ma kañ naan cheikhu fay alaman aalim la allam la moo fay siidi barhaama ngan ngam defal siidi ibrahima bët matu masu koo gis nopp déggul ko moo gëm siidi barhama jazaahu rabbul wara xayran bila adadin ci dolli koy may yu ful yam xam fa ci ay يوي سيدي إبراكو تاليف سيدي برهامة قمناتي كاشف ألباس وجامع إسرار كلن يرنا معلوم حتى برهامة تاليف نتيري يو يو ويخل يو تاليف نتيري يو نيو وخفوف روح أدب تيري حكم لبو جمال ناري برهامة بتاي لمل طيب أنفاس dalal na dalal na xelam mooy tagg cheikhu abul abbas barhama nuurul basar moo ko taalif kenn gisul lu lu nu mel nuurul basar moo ko taalif kenn gisut bu nu mel di tagg njool màkka waaye jaaraama barhama xamrun xalaalun wa taysirun demoo ko welef rawdul muhibbina moo leen raw fa barhama alfaydu wa sirru moo leen def wesar aki way li mawlidil mustafa موصب برهامة بول فاتي تحفة أطفال كجس نويدم داي قمل العرابة والتصريف برهامة قناو قتالف نروح الحبي روح ديرم دي تق قطب البرايا نعم برهامة بول فاتي تفسيرة الأنام موكو دفر موي تيري بي قمل يالاك سيدي برهامة كوبغا قم يالله ak yónneen te doo tugalam fi sirri wal soobul yooni baraam ku bëgg ku yàlla ak yónneen te doo tugalam fi sirri soobul yooni baraama ku sob ku soobu yoonam ku soobu yoon yoon yoon ku soobu wa te def majzuub te fonku sikar ba jeex ci yàlla difaanin jeex ci barxaama يرى الإله بعين القلب باطنة تبوغ ملي يرى التالف برهام لي دوينا كوي وخا وخا لي دوينا كوي قما قم بول ودي بول سخلو بول ديغت لي برهام كنا يغوني حديث المصطفى دفنون فنون بو كين لينكار كو غنول غري برهام ngërëm yi nag ñetti téeméer laak fukk ak lu tofal ku leen xamul waruloo dinga li barxaama te kenn xamul leen lu may njol màkk ak ña ko dar te ngëri baatin ye ñoo ful yooyu fa barxaama te yàlla ne sàkk naa maftuuxu du ñu xaw ci menn ngir yi ñi naa ñooy maa si te xawlu naa waaju baax day mel ni ahmadu zey مغام جنا سما مير كو برهاما له فضائل لا تحصى بكاغده ري الحنان ترير القمن برهاما له مكارم اخلاق مهذبه يو قمن موكو جاغو موك سيدي برهاما حلم حياء حلم حياء وجود ثم معرفه لو التبه lawet tabe te xam xam-xam ni barhaama wa wa xusnul wa aadaabin kaza waraun moo yor gaaña ulul azmi barhaama sabrun wa shukrun wa bahjatun wa makrumatun moo taaru moo taawu moo ni barhaama أطال عمري بأرزاق وعمرهما رب الوراء أجلد julit buy wax ne barxaama astaghfirullah ànd ak laa ilaha بولك صلاة على المختار برهاما صلاة ربي مع التسليم بالكرما على الذي صاد برصيصا وبلعام اللهم صل على سيدنا محمد